kon loolu day tax sa ñu ñu ñu laaj la ba xam euh, sa xam-xam ci wàllum politique euh, fan la jógee réellement parce que da ngay émettre ay sa ay idées. dama doon jàng alxuraan. moo tax nga nga xam euh, politique nu muy demee. maa ngi lay yàggleel. Mhm. dama doon jàng alxuraan. sama yaay ngi nii toog sama papa ngi nii toog sama yaay di liir kaamilam sama papa di di topp ay téereem ma ñu dégg ci. mbedd bi lii li ma lay wax ay 1957 la ñuy woote Senghor ak Lamine xeer yi ci raay bi xeer yu la yoon ñu ñu dégg ci biti ñuy wax ñu yuuxu ñu ne ñii Senghor lañ àndal xeer yi dal ñu dégg xeer yi dal ci kaw tuile bi ma toog rek benn tuile euh, xar ñëw fii xaañ ma fii mu ngi nii bën bën baa ngi nii ah may laajte ne waaw lii lan la ñu ne ma lii de politique la ko teg ma ne politique mu ne ma ne ko toog sa néeg ak sa baay di jàng ñoom ñu jàng alxuraan mu fekk la fa euh, euh, gas sa euh, dal sa bopp bi gaañ la. Hmm. loolu mooy politique mu ne danaa ko topp nga <laughs> ngay topp ba léegi te wàññee ko. ah loolu moo tax kon mën nañ jàpp ne xale amee Khalifa Niass moom saa yu mbirum. politique amee ma tooñ ma topp ko. moo kon da nga ko topp. bu ma bàyyiwoon foofu ma jàng sama jàng. du ma xam sax lu ko dafa yéene bàyyi. ah déet loola xaaj. Hmm. moo ngi koy fee xaañu ko du ko bàyyi. kon daal mën nañu séntu Ahmed xalifa Niass ci langum par exemple euh, élection 2024 yi ñëw nga ni da ngay présenté wu. damay damay atteindre limite d'âge. Mhm. waaye nag bu ubbee ko ci diggante bi ma dugg.